déclaration bi mu ngi jëm ci situation nationale bi nga xamante ne mu ngi marqué par des tensions ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku nañ ko mu am fitna ak violence boobu COS lu mu ciy xamle mooy euh, euh, mu ngi ñaawlu euh, appel à la violence yi nga xamante ne mu ngi am ba am ay nit yu ci loru ñi ci génn àdduna ak ñoo xamante ne am nañu ci seen i euh, liggéeyukaay yu yàqu waaye ñu ngi ñaawlu tamit ni ñu ñuy traité ki nga xamante ne mooy euh, Ousmane Sonko ndax traitement bi ñu koy def ba muy laal intégrité physique am nekk na loo xamante ne lu ñu ñaaw la lu mun a ñàkk. leneen li mooy COS mu ngi wax que ne bañul procès am waaye nag bu procès di am nañ nekk procès bu tegu ci yoon boo xam ne. dafay nekk justice bu tëddee ndey ji seex boo xam ne euh, luy génn ci procès bi du am benn jiixi jaaxal que ne euh, lu jaar yoon la kenn saafaañewul droit wu kenn ba tey kos mu ngi ñàkk rafetlu euh, li nga xamante ne commencé nañ ko nemmeeku ci espace public bi muy saafaañoo ak ak yelleefu citoyens yi ci wàllum manifester ci wàllum liberté d'expression moo tax d'ailleurs am na kuréel gu mag boo xam ne dinañ def suba rassemblement bu mag jëmale ko ci euh, def woote jàmm ca place de souvenir loolu daal ci tënk mooy li nga xamante ne mooy déclaration bi nga xam ne moo nekk euh, fii di woote aussi euh, ja ja waxtaan entre opposition bi ak pouvoir bi ndaxte waxtaan la ñu mës a xamee suñu réew problème lu mu mës a mës a am nit ñi lañ daan waxtaan ñi nga xam ne ñoo seq mbiru euh, politique bi. Ablaye Wade da daan waxtaan ak Abdou Diouf Abdou Diouf da daan waxtaan ak Ablaye Wade et eh bien opposition pouvoir la ñu mës di waxtaan donc ñu ngi ñaan opposition bi ak pouvoir ku nekk nangu waxtaan sans que nga compromettre sa bopp. parce que waxtaan mën na am te com euh, du am kenn ku ci compromettre sa bopp sa sa sa dignité ak sa indépendance. alors dialogue waa dialogue moom euh, Sénégal réewu dialogue la suñu culture culture dialogue la ah ñu culture dialogue la euh, lépp lépp euh, ci dialogue la mën a xewee lépp ci dialogue mën la mën a soxeekoo en tout cas jàmm de ci dialogue bi la mën a soxeekoo élection yu jaar yoon i tamit ci dialogue la mën a soxeekoo moo tax ñun suñu credo ñun collectif bi mooy euh, dox tànk jàmm ci diggante euh, kujj gi ak euh, ci digg ak pouvoir bi pour ñu mën a toog waxtaan li ñuy bëgg daal du doon suñu sago ñu toogaat autour d'une table waxtaan jéem a déggoo ci ponk yi nga xam nga ñoo ñooy ponk yi nga xam ñoo leen féewale fu mu nekk nii pour mu ñu mën a am ay élection yu calme ay élection yu euh, àndax euh, euh, yu mucc acub yu mucc ayub ba ñu génne ci ci jàmm ak